du cam mbokk yi jërë ngeen jëf la seen future Futur euh, Média ñu yegg si nag ci émission penco ci kàddu gi Barthélémy Gom. nous koy defee suba su nekk ci antenne bi tey ñu wuutu fi Alaaji Assane Gueye euh, fas yéene waxtaanee euh, doore waxtaan bi ak fièvre jaune ba nga xamante ni feeñ ci ay gox yu bari fii ci Sénégal Bok na ci Kunda ci boppam ci kanam tuuti danyo. ànd ak ka fa médecin chef. médecin chef bu district euh, bu Tambacounda di docteur euh, Tidiane euh, gajaga mu wax ñu feebar bi nam fa nam fa tëddee defal ñu situation ba ca région ba waaye it wax nu ba fii ana ñaata lañ na fa gis ak it matuwaay yi nga xamante ni jël nañ ko ngir gantal lii di feebar bi rawatina nag campagne vaccination bi nga xamante ni daanu ko tàmbali foofu le ca ca ca Tambacounda. daanu waxtaanee ci ñaareelu pàcc bi jox leen ci kàddu uh, mu di uh, coow li nga xamante ni uh, tàbbi na gannaaw mbas mi nga xamante ni moo fi nekk boobaak léegi ñu koy xeex te mu tëfee jóge tey nag dañuy laaj rek sampap laaj ndax ñu bëri dañu gis ne daal dañoo war a prolonger vacances yi su ko defee ñu mun a ñu mun a may élèves yi ñu mun a moytu ñoom it feebar bi ndax loolee. ànd ngeen ci ngir ñu prolonger vacances yi euh, ñu mën a toppatoo li ci école yi ba noppi waaw am déet seen kàddu euh, ñor nañu ñu taataan ko ci 88 628 14 14 88 628 14 14 waaye ni ma ko waxee rek ñuy xaarandi docteur euh, Tidiane Gadiaga su ko defee ñu tàmbali waxtaan bi ak ak moom mét euh, docteur Tidiane Gadiaga nag euh, ma fàttali leen ko moom mooy euh, médecin chef district sanitaire bu Tambacounda liy solos waxtaan bi moo di feebaru ngas bi nga xamante ni feeñ na fa docteur Gadiaga daa yegg si Abdou Thiam yegg si na waaw docteur nu ngi lay nuyu. ñu ngi lay euh, nuyu di nuyu jërëjëf lay nuyu di nuyu waale waa Tambacounda yëpp euh, docteur nag tey dañuy waxtaanee yow yaay euh, médecin chef <coughs> nga baal ma yow yaay médecin chef district sanitaire bu Tamba. ay fan a ngi nii ñu ne mekk fa ay kaaw fièvre jaune mu di feebaru ngas situation feebar bi foofu lay nu mu nu mu fa tëddee ba fii. waaw dëgg la comme ni ngeen ko ni nga ko waxee ci région de Tambacounda. particulièrement bu ñuy wax district sanitaire Kidira. Mhm. ci diggante septembre bi jàpp novembre dañoo identifié woon ñu notifié lu ñuy wax ay kaawu fièvre jaune. Mhm. léegi nag loolu toll woon na ci ñeent kaawu fièvre jaune. Mhm. malheureusement nag ci ñeent yooyu. am na ci ñaar ñoo xam ne jot nañ cee ñaar ñàkk seen bakkan. te comme ni ñu ko xamee fièvre jaune. Euh, bépp dëkk dès l'instant que nga am ci benn cas rek. Mhm. dañuy déclarer dëkk boobu comme en situation épidémie de fièvre jaune. Mhm. donc euh, loolu nag moom moo tax euh, Sénégal bu ñu identifier kaw fièvre jaune yooyu à Kidira identifier ko aussi ci région de Matam identifier ko ci région de Kédougou ak Touba. Mhm. donc ci lañ jugee ñu ne tamit il faut que ñu agir pour que épidémie de fièvre jaune boobu noonu. ñu xeex ko le plus rapidement possible moom moo sababal il les fournis des campagnes de vaccination au niveau de ces deux régions, muy région de Tambacounda et Kédougou. Mhm. D'accord. accord euh, sànq maa ngi naan euh, fièvre jaune ngas waaye dama juum pays la euh, fièvre jaune mooy feebaru pays léegi nag yéen ci ñeenti cas yooyu rek ngeen ngeen yem. waaw fu mu ni la nag ci ñeenti cas yooyu rek la ñu la ñu Euh, loolu aussi euh, day expliqué wu ndax lu tax muy expliqué wu. Mhm. Euh, maanaam fièvre jaune dafa am lu ñuy wax période de basse transmission ak période de haute transmission. période nag de bi moo ñëwagul. Mhm. ñun nag loolu la ñuy bañ mu fekk ñu moom moo tax ñu bëgg a anticiper def la tout ñàkk balay période de haute transmission bi di di tukk. Mhm. donc loolu moom moom waral waral ñàkk yi ñu war koo tàmbali le plus rapidement possible ci biir mois de février bi pour que. ñu mën a protéger la population. mooy mooy mooy date date bi mooy date bi ñu wax ne le quinze lañu koy tàmbali le 15 février bi. voilà donc ci ñaari régions yi yëpp muy région de Tamba ak région de Kédougou. Mhm. donc euh, ñàkk yi ñu ngi commencé à partir du 15 février incha allah. Mhm. ba le 24 quatre ba le vingt quatre février. Mhm. d' accord euh, léegi nag euh, bu mooyee ñàkk yooyu ban dispositif ngeen taxawal. waaw dispositif yi nag lenn lu ñu njëkk def ginnaaw bi waa ministère de la santé et de l' action sociale ñëwee. Euh, waxtaan ak équipe cadre de région yeeg équipe cadre de district yi. Mhm. Euh, orienté leen ci wàllum ñakk bi. ñun aussi ci suñu wàll orienté nañ l' ensemble des infirmiers de poste ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, nekk sur le terrain aussi. Mhm. war ñakk léegi ginnaaw loolu aussi am na ñuy wax ay volontaires yu leen di jàppale. Hmm. ñoom aussi dañ leen di former ci nan la ñuy ñàkkee nan la ñuy jëlee en charge effet indésirable yëg lépp incha allah loolu la ñu war a def. Hmm. mais aspect bu ëpp solo ci dispositif bi. Hmm. moom mooy aspect wu communication. donc fu mu nekk nii dafa nekk aspect boo xam ne ci la ñu nekk di liggéey bu baax a baax a baax di insister ci communication surtout de proximité. les leaders d'opinion également les autorités sanitaires les autorités locales les autorités administratives parce que pour que la communication la population adhère à la vaccination pour que nous aussi nous nga le devoir de protection nous protéger toute la population contre cette fièvre jaune on risque d'avoir des épidémies ci période de haute transmission bi si jamais. rawatina ci euh, euh, jamono yu mbas mi léegi dafay boobaa dafay gën a dafay gën a compliqué mais docteur euh, fièvre jaune maanaam souvent xale yi lay dab nan lay manifesté waaw fièvre jaune nag dafa nekk feebar boo xam ne ñu ngi ko boole ci li ñuy tuddee fièvre hémorragique maanaam fièvre boo xam ne tey jii bu la jàppee. Mhm. dina dem ba defal la loo xam ne ngay wàccu deret wala ngay xëpp deret. Mhm. feebar la boo xam ne li muy njëkk a manifesté woo da ngay am ay yaram buy tàng boole ci aussi dina dem ba say bët say bët dina jaune maanaam mboq. Mhm. donc loolu moom moo waral. ñu tuddee ko fièvre jaune ñu tuddee ko fièvre fièvre jaune. Mhm. voilà d' accord mais mais mais mais situation bi feebar bi lu ko lu ko andi est ce que ça veut dire que Euh, parents yi yóbbu ñu woon xale yi ñu ñàkku euh, ci seen ci programme yi élargi de vaccination yi wala lan la lu ko waral. très bien dafa am ay réticence wala. lu am lu am solo la parents yi macha allah wax dëgg yàlla ci ci yenn district yi ñu ngi doon indi ci at yi passé tamit euh, seeni xale ñu ñu ñàkk leen mhm. loolu gaa am na tey ji boo jëlee district yu bari ci fi nga xam ne entre Tambacounda la ak Kédougou bu ñuy euh, bëgg a jot téeméeri xale am na ci ñoo xam ne dem nañ ba jot euh, juróom-ñeent fukk yi mhm. donc loolu lu baax la mais bu ñu fàtte ne que aussi en dehors xale yi dafa am ñu nga xam ne ay mag ay mag lañ ñoo xam ne peut-être ñàkkuñu ñàkkuñu woon fièvre te dès l'instant que ñàkk woo ko yoo bi nga xam ne tey jii moom moo lay jox moom mooy joxe jàngoro yi feegul jot bis bu la màttee mm-hmm. donc da koy amee te facilement mun nga wàll mën nga wàll muy muy muy xale di mag muy xale di mag donc loolu moo tax aussi ñun ci suñu campagne de vaccination bi mm-hmm. yemalewuñu ko rek ci xale yi donc duñoo war a ñàkk képp koo xam ne am nga juróom-ñeenti weer ba jëm kaw maanaam amul àpp ci ci ci at mi mm-hmm. ndaxte feebar yo nekk na feebar boo xam ne du jàpp xale rek mais ñëpp lay ñëpp lay jàpp. mais mais mais mais mais boo ko ñàkkoo benn yoon rek jeex na. waa lool li am nag euh, surtout intérêt ci ñàkk bi. Mm. mooy dès l'instant que nga ñàkk ko benn yoon rek. donc dañu ko tuddee ñàkk la boo xam ne c'est immunité à vie maanaam da lay protéger ci sa ngiirug dund. Mm. donc loolu moo tax ñuy appeler toute la population ko ñu profité ci campagne bi jël benn yoon seen dose de vaccination bu ko defee ñu protéger wu contre la fièvre jaune. Mm, mais xam nga nit bu dee boo boo dee ñu ñàkk la nga dem ba màgg euh, xamoo ndax ñàkkoon lañ la ci nga dem ñàkkuwaat loolu ban conseil mënul am ci yow conséquence waaw loolu aussi question bu am importance la parce que même xale tey jii mën na ñëw ñu ñàkk ko maanaam contre la fièvre jaune mm-hmm. ci weer bi passé mm-hmm. weeru campagne bi ñëw xale boobu aussi bu ñëwee dañ ko war a ñàkkaat ñàkk boobu amu ci benn contre indication par contre sax day def lu ñuy wax ren day renforcer son immunité maanaam tey jii day ndax soldaar yi nga xam ne moo nekk ci ci yaramam dañuy gën a bëri doole pour xeex fièvre pour xeex fièvre. donc ñàkku ko ñàkku ko ñaari yoon amul benn gàllankoor. ñàkku ko ñaari yoon day gën a dolli doole say soldats. système immunitaire loolu aussi voilà ce système immunitaire donc moom moo tax aussi on conseille à tout le monde. ñu génn ñàkku par rapport donc à cette à cette euh, maladie muy fièvre jaune. d' accord docteur euh, Tidiane ñu ngi lay gërëm bu baax. ñun ñoo lay gërëm euh, Barthélémy jërëjëf ñuy nuyu waale waa Tambacounda yëpp nuyu waa Kidira euh, jërëjëf mm-hmm. docteur Gadiaga di médecin ñu ngi jërëjëf di docteur euh, médecin chef bu district sanitaire bu Tamba. ñu doon waxtaan ak moom wàllum fièvre jaune gafa nga xamante ni feeñ na ci district bu Kidira wax na ko ñaari ñeenti kaa la woon malheureusement ñaar yi décédé. ñuy masawu seen i seen i njaboot euh, def na appel également askan wi ngir bu ñu tàmbalee campagne vaccination bi le 15 euh, février bi ñëpp euh, dem ñakku ji Euh, ñàkku ko ñaari yoon yàqul dara dafay tax sa système immunitaire gën a dëgër donc euh, loolu bu ci kenn am xel ñaar jërë ngeen jëf jërëjëf docteur euh, ñu yegg si nag ci ñaareelu pàcc bi bëggoon nañ ci ànd ak Ibrahima Diame suñu ndaw la ci kaw la waaye jotunu ko ci dogal gi nga xamante ni jël nañ ko daal di annulé gàmm bu ba Niassène la ko waral xam nañu ko mu di feebar bi di mbas mi kilifa kilifa diini yafa ni daal ci jamono ji wóorut ay dajeek yooyu di fi am sàkku ci taalibe yi rek ñu toog ñoom it ku ci nekk toog sa kër ndax jamono mayewul ay déplacement yu ne ak euh, yu ne mel euh, ba tax na ñu jël dogal googule bëggoon nañ ci ànd ak jàmme waaye antuwut xam na beneen yoon rek euh, daañu du ñàkk daañu ko daañ ci waxtaanee. ñu yegsi ci ñaareelu pàcc bi ponk la ba nga xamante ni dañ leen koy jox rek ngeen àddu ci muy di samp laaj boo xamante ni dañu ko samp di laaj rek ndax dañoo war a yokk vacances scolaires yi maanaam vacances yi élèves yi nekk ci jamono jii te ñu war ko jeexal ci semaine fin de semaine bi ndax dañu ko war a yokk su ko defee ñu gën a aar élèves yi ci feebar bi wala bokk euh, ndax euh, dañu ko dañ leen di bàyyi ñu jàngi ñu delluwaat rek ca la ñu newoon euh, respecter mesure barrières yi lu ci seen xalaat ci 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou Thiam am na ku ne ci ligne bi waaw ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum kooku. Soxna Ndeye Fatou ngoom Soxna Ndeye Fatou Ngom noo def Soxna. ça va bien merci acca ñu ngi lay déglu. waaw euh, pour affaire Covid bi mën ngeen bàyyi euh, ba Covid bi wàññeeku tuuti pour ngeen bàyyi xale yi ñu jàngi. waaw ah, loolu mooy sa xalaat. waa loolu mooy sama xalaat ñu téye xale yi daal ñu bañ a dem ecole ba Covid bi wàññeeku. waaw ba Covid bi wàññeeku. waaw waaw d' accord d' accord jërëjëf jërëjëf soxna loolu mooy xalaatam 88 628 14 14 laaj bi lii la ndax. dañuy war a bàyyi xale eh, xale yi ñu delluwaat ca école ba wala boog ñu yokk seeni i vacances ba feebar bi wàññeeku salaamaaleykum. waaleykum salaam. monsieur Barthélemy. Omar. man ma de soow Sow noo def. sant bu baax alhamdulilah keroog maa ngi lay seetaan eh, si déclic yow ak monsieur le maire de Ziguinchor. waaw lay Balde waaw. Ablaye Balde vraiment c'était bien de vraiment seen émission boobu man émission bi ma naw la quoi sincèrement. jërëjëf jërëjëf. Vrema, amgo lou gana nek emisyon, emisyon wolo fi, emisyon wolo depa am solotot non. la anon, pi se populasyon, pi mom lo gana yite louko fransebi. Wala, mm-hmm, mm-hmm. apirou ki, laj vina laj, wak te gyal la, mande souman sanyon. Mm-hmm. Vrema, ke le Ministre l'Education nationale naka pran tout se responsablite. Ko hale yi nanyi django, bakte li mi dao, bou l fatte ni mi hale yi django nyo dao. Pi se COVID vina, mal gere ka amnen, me depa am zon wahanme koum geno opole. lycée yi dama lay jox exemple fii si Pouladou au niveau de Kolda presque ay benn cas ay ay trois jours nga koy dégg laa la ay nangam kaa léegi ñëw ñooñu bu lay nar a yemale ak xale yi dëkk Thiès loolu dina doy waar trop. Mhm. wala xanaa état bi jël lay eh, xool nan la mun a eh, kii zone bu ne eh, eh, kii zone bu ne ak situation géographie am ñu def ñu jàngee kii ñu defee ko noonu. Mhm. mais kantaa yi ñu bëgg a yemal lépp nañ toog ba ko bi fii laal loolu moom tamit vraiment enseignement bi tamit na si kii trop bul fàttali enseignement bi état bi chaque jour état bi mu ngi def lu ne laal la wax pour fay enseignants yi. Mhm. gars chaque jour ngay dégg gars yi di kaas léegi nag bu ñu naree toog encore ñu fayaat la comme daaw loolu vraiment loolu dina métti trop man daal nañu xool situation géographique. nu xool nu xool daal nu xool daal nu fexee élèves yi jàngi ñu respecté mesures yi. voilà di jéem a respecté mesure bari puis dañ jàng tamit ci eh, ki ki ki ki xale il faut ñu jàng ah. il faut ñu jàng te tam il faut ñu te jàngalkat il faut ñu jàngal pour ñu kii euh, pour seen seen ñàkk bi kii law leen quoi. Mhm. man daal nañ xool tamit tamit vraiment le problème bu am Thiès wala problème bu am Dakar problème boobu amul Kolda amul Tamba amul Kédougou amul. Matam maanaam daal gox gox bu nekk ak particularité am. voilà nañ nañ ko xool te état bi daal am na moyen ak pouvoir nañ ko mesurer daal nañ ko mën a cee na mandat pour mandat nañ jàngi daal mandat loolu te EPS tous les présidents conseils départements ñu jàpp ci laala aspiré ak les maires hmm. ku nekk ak zone bi nga dëkkee laala nga def ci li nga li nga ci man vraiment ba njàng bi vraiment ki bañ a quoi hmm. vraiment di jaaree le professeur Moussa Baldé président conseil département de Kolda merci jërëjëf jërëjëf Oumar Sow Fuladou, 88 628 14 14 tey l'école bi la ñuy waxtaane laaj bi samp mooy ndax dañuy bayyi xale ñu ñu wat gënaaw euh, semaine bii ñu nekk nii ndaxte lundi la ñu war a reprendre ndax boog dañuy yokk seen i vacances ba feebar bi wàññeeku lu ci seen xalaat salaamaaleykum waaw Barthélémy salaamaaleykum waaleykum salaam kooku waaw kii Sandiarem la Sandiarem waaw Barthélémy ñu ngi lay ziar ñu ngi delloo ziar naka waa Ndiarem waaw ñu ngi sant bu wér ñu ngi sant bu wér jërëjëf nuyul ma ñëpp waaye Barthélémy li yëpp waxu jàngalekat yi la ñoo koy lijjanti waaye jàngalekat yi ñoo bëgg ñoom di di lekk xaalis te duñu liggéey hmm. mais wopp si du te du du du du kenn ñëpp a ko bokk xamuñ loo xamul kañ lay jeex nag. Hmm. boo nga jéem a dëkk moo ne ni ngay gis nii nag euh, sa njaareem waaw jàngalekat yi bëgg nañu jàngale ji dañoo wax kay ne bëgg nañ dem école waaye na fekk la war ca école ba yëpp ngir moytandiku oh, feebar bi nekk fa. àdduna bi ku nekk li war ci yow lépp sottiwut. waaw man mii li war ci man lépp mënuma ko. Hmm. keneen keneen noonu. àdduna hmm. lu dikkee da ngay dund ak moom noonu. ndax daa daaw la wopp si commencé woon bu ñu doon xaar pour fopp si jeex kon xale yi duñ jàng daaw mhm. kon jàng mi day nul mhm. loo xamut benn at ngay am ak moom xamoo ñaari xamoo ñetti at benn ñu ngi ni ñu ngi ni dëkk ak si siburu di fexe ba siburu yi wàññiku mhm. nañ fexe ba dëkk ak moom te dem jàngale ji te kenn ku ne li nga sartoo xale buy jàngee ne yóbbu masque su demee maître bi nañ dàndanteeg ñoom bu ñu manee te xale yi yàlla dogal na bon wopp si bon buñ ñu boobaak léegi ñaata mètre la fi dal mais lu mu fi lay ci nit ñaata lañ bu ñu la limee jàngalekat yi tuuti la bu ñu limee eh, jàng eh, ñiy jàng mètre eh, yi tuuti lañ mais kon ñun ñëpp nañ bokk ci yëpp yi Sénégal la ñëwandoo na Sénégal yëpp bokk bokk ci yëpp yi. Mhm. suñ dee wér ñun ñëpp wér suñ dee leneen tam ñun ñëpp leneen. waaye bu nu yàq suñu njàngam gone yii di ko latoo ay wopp. déedéet wopp moom ñoo ngi moom a dëkk ci réew mi fekk àdduna ngi fi ne. wopp di fi ne mhm. jërëjëf Barthélemy yàlla yàlla doon xewal amin amin sëñ Ndiarème jërëjëf 88 628 14 14 88 628 14 14 Salam salaamaaleykum waaleykum salaam ah kooku Barthélemy Mohamed euh, Moustapha Diagne ah. TFM ah ok euh, directeur na nga def ça directeur day nit ñaa ngi nit ñaa ngi évoqué waxtaan fii de yéen moom comme yéen ay ministre ministère wa ministère kay moom <laughs> waaw

Mhm. Euh, terewul virus bi di circuler mhm. waaw du ubbi école aussi moo tax virus bi circuler parce que bu fekkente dañoo am ñeenti millions ci ay élèves xam nga ne foofu bu fi virus bu duggee euh, kon kii di lire affaire cas chaque jour du wax ay cent cas ay milliers de cas lay wax. Mhm. am na loo xam xel moo ko mën a moo ko mën a jàpp. allo.

Mhm. Il faudrait du gel dans les établissements mhm. et les masques. Mhm. Ensuite, les effectifs. Pour une distanciation sociale, je crois qu'il faut avoir un système de double flux. à l'état actuel, des choses, c'est difficile pour nous de distanciation au niveau des, des classes. Oui, mais parce que vous voyez sur une table, deux, trois, à quatre gosses sur une table, c'est pas ça quand même. Hmm? Voilà, c'est mon point de vue. D'accord. D'accord. Voilà, euh, monsieur Barthélémy. Merci et bonne journée. Merci pareillement. Merci. Merci. ñuy nuyu zigan chor yëpp euh, Mamadou Ndiaye. 88 628 14 14 88 628 14 14 Abdou. salam salaamaaleykum. maaleykum salam ah kooku. asalaamaaleykum. Salam salaam wa rahmatulah. kon Barthélémy Ngom. waaw kooku. j'espère que lekk nga mburu ba pare ngomee ni mburu rek la dindé ah déet man kay ciéré ciéré dal boo ma ko waxee d'accord. ah Saaj kon baax na. waaw <laughs> yow la Jibril Sène la. Ah, eh, kay li tax ngay wax. <laughs> <laughs> waaw ndax neex gépp leen di nuyu nag. waaw acca nuyul ma ñëpp. ne ko waa ndax neex gépp ak leen di ziar. jërëjëf jërëjëf. Euh, Barthélemy. Mhm. Sénégalais yi il faut ñu xool aussi ni ñuy waxee. Mhm. xam nañ ne jàng jàngalekat yi créé ñu corona. Mhm. tey jii je per j'espère bien. en tant que sénégalais amul benn sénégalais boo xam ne boo sañoon corona am ci réew mi. kenn kum galankor mhm. kon je pense que nous jangale kat yi waxu rek pour ñu arrêter pour rien mhm. mais battle condition est moy problème xam nga corona dañ distanciation sociale le minimum 1 mètre mhm. mais demal ci all bi tu tu tu trouves des salles de classe yo xamanteni 80 élèves ci nek ñetti nit ci ben banu banu 1 mètre 20 trois personnes ci banu 1 mètre 20 on waxuma une distanciation sociale waye collège sociale la ni wax <laughs> ñoñu kenn ku ci nek di noyyi ainsi de mais c'est ba pare xam nga dañu ne feebar bi xañ na aayul ci xale yi. mais xale bi mën na ko jël te du def benn réaction ci moom mu yóbbul ko papaam wala maamam. est-ce que papaam wala moom mu bëggul dundu donc foofu la ñuy waxee. beneen bi ci des aussi sa école yi da cee bëri école yoo xamante ni Barthélemy nawet bi yëpp da doon taa. Hmm. ñu jóge ci nawet bi automatiquement école tijji ñu dugg ci. yenn yi désinfection bi sax jaarul yoon. lolu jaxaso ak feebar bi ñukoy noy man man man j'aurais préféré à la place de de fermer ñu def euh, ay désinfection ci école té lolu yaakaar naa aussi. Euh, responsable boobu établissement scolaire euh, waron nañ ci taxaw. ak collectivité territoriale. manam hmm. désinfecté bobu su mënul am. nañu def benn halte un peu au moins pour ah, quelque temps maire yi maire yi maire yi dinee nañ amatuñu koppar lañ amoon yëpp jeex na ca première vague ba te ñi ci des seen budget ñëwagul waaw mais parce que nañ ko consommé la bu ñu ne salaamaaleykum première vague Barthélemy hmm. ngay dajale ceeb ak diwlin ceeb ak diwlin mënul ci feebar dara hmm. mënul ci feebar dara ba ah, pare ah, am na nañu koy teewoo woon ci jamono jooju ba fii sax il faut il faut aussi hmm. may may ñaan aussi sénégalais yi ñu ñu ñu bàyyi xel benn affaire ñetti koor yi Hmm. dañ leen war a respecté war leen a gën a respecté sax ndax ko euh, pandémie bi. Hmm. jàngalekatu école bi fi ñëpp toogee ñu ne kenn tukki. Hmm. dañ lañ ciy kaar ñu dem. homme de tenue vingt et une heures bu jotee ñun ñëpp dañ naan leen dugg leen seeni kër bala leen a jàngoro jee dal boo génnee ci biti fekk leen ci. homme de santé yi ñëppay moytu jàngoro ji ñoom ñu ngi ci hôpital yi di jël les risques. kon ñii nañ leen jox cër. te ñaanal leen parce que bu ñu wéree ñun bu ñu wéree sunu sunu avantage la. nañ leen bàyyi xel képp koo gis nga leen di ŋàññe nag damaa yaakaar ne amoo ci mbokk wala promotionnaire wala xarit hmm. mais nañ leen bàyyi xel bu baax parce que ñi ñuy def seen liggéey comme nu mu waree la hmm. kon nañ leen ñaanal te bàyyi leen xel mbas mi nag yàllaa ko fi indi yàlla nañu ko fi yàlla jëleel ci nu mu gën a gaawe amiin yàlla na ko fi yàlla yemale yàlla nañu yàlla boole ci ñu koy nettali amiin merci beaucoup amiin jërëjëf jërëjëf seen 88 628 14 14 c'est vrai it euh, ñu ngi def liggéey bu am solo ci guddi gi bu 21 heures jotee Euh, ñu ngi def liggéey ci am solo ñoom it euh, ñu leen ci félicité waale ndax yombul guddi gu nekk nga taxaw si mbedd mi bi ba daanaka bët set salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw kooku. Abdou Aziz Ba à Linguère. Aziz Ba Linguère. waaw. waaw kii de sama jaam la de. exactement. <laughs> na ngeen def naka waa Linguère Abdou. d'accord ñoom ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. ma ñëpp waaw. waaw ah, naka waa kër gi yëpp. ça va sant yàlla bu baax. waaw bëggoon def benn participation rek ci émission bi. acca acca ñu ngi lay déglu waaw. waaw wax rek ne moom de fekkee ne dañuy am doute. Mm-hmm. ci ne feebar bi moom mën na dugg ci école yi. Mm-hmm. mais boo ko ñu interrompre ne situation bi nu muy demee. Mm-hmm. ndaxte aussi wóorut comme que dañuy éviter les rassemblements te école en le piir moom. Mhm. moom wax dëgg yàlla mën nañ ko war a mën a foofu aussi. Mhm. waaw bu fekkee ñu ñu tëj ñu tëj ñu tëj wala ñu yokk vacances yi ba feebar bi wàññi. waaw xam naa ñu yokk vacances rek. Mhm. voir euh, daan nan lay ci maanaam maladie bi ah, seet est-ce que ça continue à se propager fekk ça continue à se aussi maanaam xam naa ne mais boobu ñu tëj école bi mais fu ne nii mën nañu yokk vacances yi rek congé bi. ñu seet ndax bu demee ba nga xamante ne ni climat bi commencé na changé boobu est-ce que euh, maanaam nombre de cas yi dinañ commencé di wàññeeku. fekk ko base dañu wàññeeku aussi retourné waat ci école yi. mais mm-hmm. si on voit aussi que affaire baa ngi continuer di law. Mm-hmm. ah ñi ñu ñi ñu ñi tëj école yi ak benn yoon. Mm-hmm. gars yi moom bañ ñoo jàngale mais c'est pas sûr aussi. d'être à l'école. tout en étant plongé dans le doute que virus bi mën na ñëw ci école mm. bi sonal mm. nit ñi ak mm. loolu aussi wóoru waaw waaw loolu bi foofu daal laay laay waxee quoi. d'accord daal loolu la ñuy wax. merci merci beaucoup Ba <laughs> merci Ba ñu nuyu waa Linguère yëpp leer na de toute façon euh, bu dogal naree amit autorité bi moo ko mën a jël euh, ministère bi te du jékki-jékki rek jël ce sera peut-être au terme. Euh, de consultation inclusive manam waxtan bo xamanteni acteurs yépp a koy bok ku ci nek euh, joxe sa gis-gis mo xam enseignants la mo xam euh, ñi nek ci ministère mo xam parents d'élèves yi xam les organisations de la société civile yu yëngatu ci walum njàng mi donc des négociations inclusives waxtan inclusive bo xamanteni ku ci nek da nga ci joxe sa sa xalat su ko défé au terme nak ñu mëna jël une décision finale wa alaykoum salaam wa rahmatulah Barthélémy. waaw. waaw man la Mamadou Médor di la nuyu nuyu groupe Futurs Médias. jërëjëf Médor. topp di déglu wax sa xalaat bi. Mhm. waaw man daal li ma ci wax mooy xam nga wax dëgg yàlla am comme que jàngalekat yi ñoom ah, li tax ñuy jàngale mooy seen salaire dañ leen fay ñuy jàngale. Mhm. waaw ab liggéey la rek. te wax dëgg yàlla aussi tamit ñi nga xam ne mooy seen jaatik muy ministre bi ñoom dañu war a déggoo ak ministère bi. Mhm. lépp lu nga xamante ni ministère bi wax na leen ko dañ ko ci war a dañ ko war a appliquer def ko. te ministère bi aussi moom tamit mooy moo organiser. lépp lu nga xamante muy kaaraange si muy masque euh, wax wax wax la ni nga xamante ni moom moom la ñu war a war a ko pour pour pour ñu respecter mesures barrières yi. waaye mhm. bu fekkee ne ñoom dañ ci bëgg a indi leneen yi nga xamante ne bi pour seen intérêt bopp. wala ñuy déglu ñenn ci syndicat la ci am na ci ñoo nga xamante ni ñoom. saa intérêt bopp du intérêt bopp de intérêt école bi la kay. waaw ah, intérêt école bi xam nga enseignant jàngalekat jàngalekat jàngale jàng enseignant muy syndicaliste di enseignant boo xamante ne bokkul ci benn syndicat di wax dara loo xamante ne peut-être dina yàq euh, bërëbu liggéeyukaayam. waaw xam nga am na ci xam ne laaj boo déggee ci xaw ma naka naan daam mais kooku des fois dégg muy wax wax yoo xam ne laaj euh, di ci boole yoo xamante dem ba sori. ci yaa yaa yaa ngi yaa ngi tooñ jëmee door. waaw xam nga waxtaan na rek dañuy wax lu ñaaw parce que ñoo parce que euh, dëgg la syndical dana dana wax lu nga xamante ne bii pour euh, loo nga xamante ne bii gën a doxal njàng mi. Hmm. mais nag bu fekkee ne dafa dem ba mujj bi ngay attaqué gouvernement bi di wax wax yu nga xamante ne bii euh, ku ko dégg jàpp gémmiñam loolu dafa am lu nga xam ne wax ko pour bës wala nga wax ko pour pour pour pour seen mbir bopp dafa am lo nga xamante ne bi daal dañ ko war di ko war rafetal. d'accord ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk. war kenn ko war na ci jàpp daal. d'accord jërëjëf jërëjëf Médor 88 628 14 14 Abdou Thiam am na keneen. 88 628 14 14 laaj bi mooy ndax dañuy euh, yokk vacances yi ba feebar bi wàññeeku wala bokk ñu élèves yi jàngi ñu continuer def na ñu defoon ba école ubbee ba léegi ñu daal di respecter mesure barrière yi gaana xam naa ne euh, dana xaw si euh, benn classe fekk ñetti élèves toog ci bu élèves yi génnee regroupe ak yooyu 88 628 14 14 salaamaaleykum allo waaw kooku yegsiwul Abdou Thiam ñooy xaarandi eh, ci ligne bi ci 88 628 14 14 salaamaaleykum. salaamaaleykum. salam salaam kooku. waaw kii. ma bëggoon participer ci émission bi quoi. d' yow la kan. Euh, maa ngi oote Ziguinchor quoi. Ziguinchor waaw na ngeen def. waaw comme nañu ne ñu prolongé kii bi vacances bi. Mhm. waaw léegi parents yi ñoo ñoo sonn encore quoi parce que euh, parents école privée yi quoi. parce que dañuy ñoo fait encore weer euh, yi nga xam ne élèves yi jaaguñu. Mhm. comme la fois passée la loolu vraiment jaarul quoi. Mhm. waaw waaw man loolu laa gis quoi nañu jàng na vacance bu bu ñu joxe ne bu joxe rek ñu dellu. ñu dellu ñu dellu jàngi. waaw d' accord jërëjëf nuyu waa Ziguinchor 88 628 14 14 88 628 14 14 salaamaaleykum allo euh, salaamaaleykum waaleykum salaam kooku je euh, préfère garder l'anonymat d' accord allez-y alors ok donc en fait man je voulais juste dire que c'est c'est tout à fait légitime de ñu wax ni xale yi nañu nañu prolonger seen seen vacances bi pour la bonne et simple raison que, en fait, il y a une contamination dans les rues et tout ça. Mm-hmm. Mais tous les, ces, gestes barrières-là n'existent pas dans les maisons, mm-hmm. dans le cocon familial, même parce que juste on est entre parents, entre familles. Mm-hmm. Alors que je veux vous dire une chose, les enfants, moi je pense qu'ils sont les principaux vecteurs de propagation de cette maladie-là. Parce que pourquoi Parce que les enfants, ils sont atteints. Il y a même peut-être d'enfants qui sont atteints, ils ont le virus, donc ils vont aller à, à l'école ils vont choper ça ñu indi ko seen biir kër yi te ñoom presque du ñu hmm. et ça les gens qui ont vécu ça peuvent vous le dire hmm. xale yi presque du ñu yenn saa yi yenn saa yi dañu gis benn euh, benn màgget boo xam ne day toog jékki-jékki ñu ne ko jot na mbas euh, voilà parce que xale yi la sax këram xale yi la xale yi ñoo ko gën a yore bon je dis pas quand même nag que que que peut-être euh, c'est même pas principal mais en tout cas ci lañ bokk. Mm. et c'est c'est ñoom ñoo gën a dangereux parce que ñom du fenk ñom fenn. Mm. Mm. ñu ñëw indi ko ci biir kër te biir kër gi ñu wax bari geste bari geste bari mais geste barrière ci biti la yem. Mm-hmm. biir kër gi demoo c'est rare tu vas dans des maisons nga gis tay di ñu toog manger à table ku nekk ak sa bool. ñun Sénégalais xamuñu loolu. Mm-hmm. c'est rare nga dem si benn kër gis que ni ñëpp dañuy tak masque wala ñu tok distance ak distanciation amul. Mm-hmm. Donc tout le monde est dehors, c'est bien vrai, avec les, les gestes barrières. Gestes barrières, il faut se dire la vérité, tu ne verras jamais un Sénégalais venir de manger et jeter son, masque pour prendre un autre masque. Mm, mm. Et pourtant, on dit que le masque, il faut, quand tu l'enlèves, il faut le jeter. Mm -hmm. Donc, xale yi ñi ngi ci masque bu dee bu ñuy fóot bu dee bu ñuy fóot la aj ajal ko sa bopp foo xam ne kenn du ko laal wala boog nga fóot ko ba noppi doog a aj bu dee bu dee bu dee masque masque masque chirurgicaux yi la bu yeggee boo génnee rek sànnil utal beneen bu ko teg sax foo xamante ne bu ko teg sax foo xamante ne xale dina ko laal egguma sax sa kër fi ngay lekkee muy yow muy keneen mhm. on dit que le masque nous protège contre le virus donc on a on a on a peut-être quelque chose sur le masque mhm. on enlève on mange et on le remet voilà voilà donc le monde def aussi il faut que nous distanciation mhm. c'est dur à faire mais il le faut. Vous vous pensez que non mais attends il faut il faut savoir choisir hein. mhm. si on veut vraiment booster cette maladie là on veut vraiment diminuer ça. Mhm. il va falloir prendre le le le le par les cornes. Mhm. vacances soit on prolonge les vacances ou bien alors on revoit le système d'éducation pour le moment. soit on les fait en une semaine une semaine. Donc, on divise bien les enfants à, l'école. Mhm. les, double Barrières, voilà, double flux. Et ça pour tout le monde. Mhm. Parce qu'on ne peut pas faire aussi le, distance, le, le, le distanciel. Mhm. Présentiel, on appliqué dans tout le Sénégal. Dans les écoles privées, on arrive à le faire et ça marche très bien mais man je sais que école publique yi loolu mënuñu ko. waaw dina metti voilà ak seen ak seen effectif yi. jërëjëf jërëjëf soxna si dafa leb tur bi jërëjëf. 88 uh-huh, au revoir oui 88 628 14 14 88 628 14 14 ñuy jox leen kàddu rek eh, ci euh, lu ñeel école bi ak euh, feebar bi Abdou Thiam salaamaaleykum. Euh, maaleykum salaam. Uh-huh, kooku. monsieur Dia Barth bonjour. bonjour monsieur Dia. Dia ou Dia. Ben, mais, mais euh, euh, il y a quand même un problème. Hein. Bon, on parle de prolonger. Euh, bon, on prolonge jusqu'à quand hmm. Est-ce que Bougnou Ramon, c'est dans une semaine, dans deux semaines ou, à la limite dans un mois Là, au moins, les gens peuvent s'engager sur ça. Mais jusqu'à quand mmh. c'était les tendances que, que Dieu nous garde, les tendances ne sont pas encourageantes. Hmm. Moi, je pense que il faut renforcer systématiquement les mesures barrières qui est collier. Mhm. À l'entrée de l'école, nous obligeons les gosses là, nous racassons les mains, portent les masques. Au moins, ça réduit. Risque zéro, Amoul, mais mhm. au moins qu'on essaie de réduire les risques au minimum. Mhm. Mais justement, justement c'est là où le bas blesse parce que, euh, constat dans plusieurs établissements, les gestes ne sont pas respectés. Et c'est compliqué d'accord. C'est là donc que tout le monde doit insister, aussi bien les parents, des les enseignants, que l'État, que l'État puisse mettre ses dispositifs au niveau des écoles. Mhm. Sinon, bon, euh, et le fait même que, les élèves aillent à l'école. Bon, mais s'ils ne sont pas à l'école, ils sont dans les maisons, ils sont dans les rues. Hein. Mhm. Ils mhm. sont dans les rues, oui. Ils vont essayer de... Euh, tous les soirs ici, euh, moi, si je me promène un peu au niveau des terrains, c'est les gosses qui sont en train de, de jouer au ballon. Mhm. Mais on ne fera que transposer le problème. loolu it problème là. ndax dañuy pour pour ñi kër ñu ci <laughs> l'autre point aussi sur lequel vraiment battre il faut se battre c'est le transport en commun les rassemblements. Mhm, surtout les transports en les tata les njaganjaay sont bondés mais mais mais c'est euh, c'est incroyable, Bart. Mm, en tout cas. Mais c'est incroyable. Mais il faut d'abord qu'on arrive à régler. Mais moi, je suis convaincu que pour nous régler le problème de transport en commun là, et les rassemblements, mais au moins à 70 à 80 on a résolu le problème. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. c'est quand même bizarre. Bon, on connaît. Et, et les gens, bon, ils ne prennent même pas euh, cas de ça, il ne même pas conscience de ça et ça un <laughs> aspect de plus belle. dafa mel contradiction quoi boo boo bëggee ne à rassemblement ba pare bàyyi leen ñuy dajaloo ci oui c'est vraiment une grande contradiction mais moi je crois que encore une fois l'autorité doit être doit doit être ferme. Mm-hmm l'autorité doit, surtout que c'est la santé publique, c'est la santé. Sinon, mais vraiment, moi j'ai peur. Hein. c'est inquiétant. l'autorité doit être ferme, les mesures doivent être prises. Mhm. Mais quand on prend un tata, un bus, on l'immobilise, on lui retire le permis de circuler. Mais si vous fait une fois ou deux fois, mais, mais ils seront conscients de ça. Mhm. Mais le problème, c'est que c'est l'affaire de l'école là bon c'est on ne sait pas quand jusqu'à quand la maladie ñu ñaan le plus vite possible mais ci on ne décide pas donc en attendant l'eau, renforçons les mesures barrières au niveau à l'entrée les masques systématiquement mais bon on a qu'à souhaiter l'argent non l'argent existe non. Mmh, apparemment. Hein? <laughs> mais mais l'argent existe mais donc qu'on cible ça, qu'on laisse les gosses à, l'école. Parce qu'ils ne vont pas à l'école, s'ils sont dans les maisons, ils sont dans les rues. Mm. Ils vont le prendre dans la rue, ramener à la maison. Et, et, là encore, c'est une Non seulement ils n'ont pas été à l'école, mm. ils n'ont pas d'éducation, mais encore, bon, ils, ils ont euh, ils ont créé le même problème que s'ils auraient été à l'école. c'est vrai. Merci. Merci. Ok, ok, vraiment. Euh, <laughs> <laughs> c'est inquiétant <laughs> c'est inquiétant ñaan voilà ñaan yàlla rek euh, mu gaaw fi mu gaaw fi jóge quoi comme on dit pulaar yo allah dandu en yo allah dandu yo allah dandu en wa yo allah dandu yo <laughs> jërëjëf jërëjëf merci ñu yendoog jàmm jërëjëf Abdou Thiam may kenn ku mujj rek laata ñuy euh, yëkkati waxtaan bi kenn ku mujj rek Abdou 88 628 14 14 salam alaykoum maaleykum salaam wa rahmatulah. kooku ñu ngi na nga def. Ah, man da Khadija Diop. Khadija Diop waaw na ngeen def Khadija. ñu ngi fi ñu sant yàlla bu baax alhamdulilah jërëjëf yàlla na sant yàlla bu alors man dama doon joxe sama point de vue ci euh, sujet tey bi. Mhm. c'est la première fois d'ailleurs que may woote parce que sujet bi daf maa ñor. Mhm. man parent d'élève la. Mhm. j'ai deux petits enfants qui vont à l'école tous les jours. mais man dama jël samay matukaay c'est-à-dire chaque matin dama indi jox masque dama jël gel dugal ko seeni saak pour ñuy aussi di laal gel bi tous les mm-hmm. jours. Mm-hmm. mais man dama am un problème. Mm-hmm. daaw école bi dañ ko tëj parce que virus bi. ren ñu bëgg ko tëj parce que virus bi. déwén ñu bëgg ko tëj parce que virus parce que virus boo xam ne xamoo kañ la fiy jugee. européens yi ñu ngi wax naan sax dañ mën nañ dëkk ak moom ay année ci kanam. mais dañ la tëj année bi xanaa xawma école bi chaque année xanaa donc suñu doom qu'est-ce qu'ils vont devenir dañ ma jéggal mais pour man bi ñu war a def mooy fexe ba école ba. Mhm. ñuy respecté les mesures barrières. Mhm. faire de telle sorte que ni. Mhm. précaution yi war yëpp ñu def ko fa di fàttali ay gel. je pense moi moi personnellement je pense que la responsabilité c'est à plusieurs niveaux au niveau d'abord des parents bu seen doom yi di jàngi comme ni nga def. Ben, c'est vrai que euh, Def mais peut-être euh, d'autres parents me diront qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire, comme def. Euh, L'autre responsabilité, ça relève de, euh, de l'administration de l'école même. C'est ça en fait ça doon naa la bu gis mhm. école bi bu de telle sorte que classe bu waay bi Moi mhm. mu am gel ñu fexe ba classe bu waaye di dugg élève bi takk masque. Mhm. ñuy respecter la distanciation c'est vrai que nag ñun dañu nekk ci dëkk boo xamante ne pour respecter distanciation ci classe yi day metti parce que classe yi da fay fekk nombre de personnes yoo xam ne. Mhm. voilà c'est compliqué suñu mhm. économie may ñu loolu mais nañu def effort parce que tamit bureau bi compagnie bi dañu nar a dëkk ak moom bii jugee gu fi. dañ ma baal. jugee gu fi. am na am na sax ñuy wax ñuy wax naan troisième vague. mangoog jugee gu donc lu fi jugee gul nañ ma jéggal nañu jéem a dëkk ak moom te bàyyi élèves yi jàngi mhm. parce que sinon dañ nar a hypothéquer seen avenir te man wax dëgg yàlla naa am dara trop lu ma naqari parce que man dama am ay dooma ah. mhm. dañuy jàngi mhm. mais man damay jël sama ay précaution yàlla nag moo yor ñëpp ñi war a am corona yàlla bind na ko ba pare dañuy muslu rekk nag

Mhm. parce que dañuy génn ci mbedd mi di taxawaal di football fu ñu aw fa ñu dem ca école ba jàngee ko gën d'accord d'accord jërëjëf Khadija ñu ngi koy gërëm mu nekkoon nag euh, sunu auditrice bu bu mujj euh, ñu ngi leen di gërëm mbokk yi de toute façon benn décision jëlaguñ ko gaa nag am na ñu agité idée bi moo tax ñu sañ teg ko fii ñëpp joxe ci seen xalaat ñu agité idée bi bëgg ñu repousser vacances yi su ba feebar bi xaw a wàññeeku xalaat yi fi jib yëpp ay xalaat yu am solo la euh, je pense ne comme kilifa yi également. Euh, ñu ngi doon déglu euh, daañ ci bàyyi xel euh, sank ki nga xamante ni moo di Mohamed Moustapha Diagne directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l' éducation dugg na wax xalaatam malheureusement ligne bi dafa ligne bi dafa coupé xalaat ba yeggul waaye ni mu tàmbalee rek mënees nañ njort ne daal fa ñu jéem fa mu doon jëm moo di tëj école bi ko donc je pense que am na ñu ko fi wax li gën mooy comme virus bi nekku fi mu ngi fi daal jógeegu fi euh, ñu bàyyi xale yi jàngi te les gestes barrières ñu respecter au niveau des établissements L'olmo, l'olmo gun. Euh, su ko defee xale yi également seen avenir euh, du du du yàqu ndaxte ñoom it euh, dañoo war a doon ay kilifa ëllëg te ci njàng mi rek lañ ko mën a amee donc nañ leen bay ñu jàngi waaye tamit également li nga xamante ni moo di geste barrière yi c'est c'est c'est le plus important ñu ñu respecté ko solo leen masque gel ak yooyu def lave main yeeg yooyu yëpp ci buntu école yi su ko defee la ca des nag mu di juste distanciation bi am na ñu ko fi proposé sax le système double flux su ko defee ñu wàññi élèves yi ci classe bi nga nga xamante ni classe yi ci Sénégal maara de dafay fees dell ak ay élèves donc euh, loolu it euh, tiital na ay parents yu bëri kon nag euh, lu ci mën am daal ñu bàyyi autorité yi nga xamante ni ñoo ŋànk njàng mi ñu peut-être du ñàkk ñu waxtaan ko ak ak mbooleem acteurs yi su ko defee ñu jël une décision finale jërë ngeen jëf.